Wow. suratu baqara ngay ya, dem demee suratu baqara hmm. boo demee suratu baqara demee hmm. suratu baqara Oh. Hmm. ay mulki Sulaiman, bobu nek suratu baqara mom ngay dem bindi yang koy bind jurom ñent yon bula nexé bula nexé nga bind ko jurom ñaar yon bula nexé nga bind ko ñet yon ay bu gudd la bu ko defé nga bolé ko khatim bi khatim bi da ngay adat sa tour ak sa turu yaay nga duggal ko fi khatim bi yang koy bind 9 fois nga dem ut garab yi am dëkk yëpp garab yi nga xam ne dañoo am dëkk moom ngay dem uti nga def leen ci saafara bi di ko sangoo boo amul garab yooyu boo amee sungufu xay wala xasam xay baax na xobi ngeer baax na di ko sangoo yow mi nga xam ne da am gelu rab yow da am gelu rab wala da am faru rab def ko saafara di ko sango yow mi ko amagul def ko di ko sango surtout waxambaane yi dañuy xëy suba seen tuba yëpp day tooy ndax dañ leen di fowe xam nga li may wax bu baax lu doy waar la ay góor a ngi fi ne léegi yor seen taraanga munuñu am munuñu am jabar munuñu munuñu sëy ngoro guñ dem yàqu la ay jigéen a ngi fi munuñu munuñu ëmb munuñu am jëkkër ngoro guñ dem yàqu na ziar naa lu nuyu naa. soxna ko ziar. leer na. fii fii. bii oo la waaw. oo la tur bind sa turu yaay nga adat ko nga dugal ko fii. nga bind bi di ko sangoo di ci naan di ci sangu di ci naan di ci sangu di ci naan yow mi am faru rab yow mi ko amagul yep jogal jogal bala nyau, ñaaw wa yow mi am faru rab waaw sa wow. sa wow sutur ak sa sant jëlal wow tur sant waaw nga calcul ko bula la sax nga def fi jibril def fi mikail ñu kepp ñu kepp ñu kepp adat bi jibril mikail waaw digënté bi rek digënté bi rek ngay def jibril sa xam nga bu nek tour bi bu nekké fi nga def jibril def mikaayil ñu ci tour bi ngay sango sa safara di ci nan di ci sangu di ci nan di ci sangu di ci nan amago faru rab amago gelu rab amago choro rab amago coru coru rab nga lu ci amago choro rab wala am nga ko da nga am faru rab wala amago ko wajalal sa bop da tanggal safara bi di ci sangu di ci nan di ci sangu di ci nan di ci sangu di ci nan ah no ben la rek rab lañuy wax jinne ah bi o oh oh la wa o la rab lañuy rab lañuy wax jinne la rek wa nga lu ci nga lu ci nga ci lu Situ boy teud boy teud ab julit boy teud ngay wajal sa situ rawati rawatina talibé boy teud na nga wajal sa bop na nga melni mbeureum lamb na ngay japp nanal ci safara sangol ci saafara taalibe sikkarkat naafila kat da nga bëgg baax ne ci alcorane ji na nga waaw ju de li tax nit ñi neub seen bop lele parce que day dafa metti de léeg-léeg nga teud wop de léeg le gaay yi gaa day metti ci yow de mas mus nañ ma songu guddii go xamne ne dama yàkkamti beur set la ilaha illallahu da rasulullah ay ponkal kay li da domba yomb de calaa daw nak saway ndomba ya sax ay ndomba ki xaw lepp <laughs> allahu akbar <laughs> tam ah. eh guddi googu yàkkamti naa bër set waaw taalibe taalibe nga da ngay liggéey ci mbiri sëriñ na nga gàllaaj da ngay nga bëgg nga même boo nekkul sëriñ yaa ngi liggéey ci bu ko gaa yi xamee doo am jàmm dañ lay attaqué guddi de ndax arrangé woo leen baaxoo ci koñ bi waaw góorgóorlu da wut gàllaaj lii daal bind ko soratu Arona yaa may dégg suratu Baqara sa auditeurs yi dañoo fii dañoo fuy suratu Baqara aya nga bind ko yaa xam juróom-ñeenti yoon yaa xam juróom-ñaari yoon man nag bu dee góor ma ne la bindal 9 bu dee jigéen bindal 11 jigéen 11 bën-bën la am góor 9 bën-bën lam am bu dee jigéen na ko bind aaya bi 11 fois bu dee góor na bind 9 fois. boole ko xaatim bi bind ada ak turam turu ndeyam bind ko fi bind jibril bind mikayil ñu tànc bagaas bi ngay sangoo saafara bi di ci naan def ci xasam xay boo ko amee ay xobi ngeer ak garab yi am dégg yëpp defal ci biir di ko sangoo di ci naan sunu borom may la taw feex waaw waaw neuf fois waaw bu dee góor bu dee jigéen onze fois baax na mun naa dañ ah mun naa dañ lii nii waaw dinaa ci ñëw foofu laa demee sax suur dama lakk ma dindi ko ah ma dindi ko lu nama ne? gannaaw ba nga bindee dama ne gannaaw ba nga bindee bi 33 fois wala ñetti yoon wala ñeenti yoon yow yaa xam nga bind lii 33 fois def ko saafara léegi nag nga wut sa xaaw wëñ bu baax yaa xam buum nga yor yaa xam lu mu mën a doon nga jàng xula onze yu béré bi falax mais soo agsee fii soo agsee fii wa min shari xaasi wa min shari anafasaati fil oqdi da nga koy baamu fukki yoon da koy baamu 12 fois 12 fois nga koy baamu ba mu nga soga jelat bi ba min sharri khasidin kasada xasada nga baamu ko 12 fois suratu falaxi ben jeexna na tambale wat suratu falaxi yaa koy baamu ba mu fukki falaxi nga fas nga tufli fas fukki fas-fas lay don, nga def ko ndom fukki bop ak ñaar mo xam lepp lu mu meuna don mun nga mun nga uuf ci wo ndox def ko mën nga ko bind saafara sangoo ko lépp lu mu fekk sa yaram dana ko dindi moo xam lu ma mën a doon nag lu ma sangoo du gis ak dama tëjoog dem fenn ak munumaa seek, munumaa lu ma am mu yàqoog lu ma am lu ma am te képp koy fas moo xam reen lay fasee moo xam lu muy fasee moo xam xànc la munul ci yow Papa Ndiaye dara munu ko ci yow waaw boo paree di nga am téeméeri falax téeméeri falaxe ngay am ndax so defé ben defaat ben defaat ben defaat ben ba muy fukk nga fas tufli fas wat benen ba muy fukk nga fas wat benen ba muy fukk nga fas ba min shara nafasat fi uqad ba min sharri nafasaati benen, ba muy fukki yon nga fas jëlaat benen fas jëlaat benen ba muy fukki pas-pas da dem ci waji nak mu lako gis nga day def ay bul sa ndig day def ni ay bul sa ndigg bu fekkee nag bul yi dañoo am espace ci ndomb li bu la neexee mun nga bind xulaaw si biro bi falaxi comme nii nga bind ko douze fois def ko ay ndomb ñu nekk ci espace bul yi ñu nekk ci espace bul yi gis nga ko dañuy nekk ci espace bul yi léeg nga gis ndomb yoo xam ne da gis ay bul ay bul ay bul diggante bul yi nag ca ngay lonk téere yi ci la wude bi di lonk téré ñuy lang azim kuy fas munu ci yow papa njaay kuy njabar munu ci yow dara kuy seytaane munu ci yow dara ku ñuy toon munul ci yow dara lu mu fekk sa da ko dindi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ak ñaar waaw waaw ak ah khatim bi day andak safara ba mun ko bind safara ba pare soko défar so ndom nak nag waaw waaw di sango sa safara yor sa ndom yow ya xam safara yi mëno ko jéxal ndóor buy ndox mi jé sax del doli <laughs> xam nga teud di nelaw bu baax di lek bu baax di lijeenti muy soti dafa am solo li moy lan Wa. Fini. Fila, Fila. Bi bokul. Ha? Wow. Wow. Wow. Hah? bëgg may dal ah may jox xaatim naa jox xaatim même démb rek an bu di xaatim trois waaw yàlla xam na ko man sëñ bi kaaraange rek laay wut man gaa yi wërsëg yii nii boo muccee barki sëñ Bamba milliards yeeg millions yi da nga ci jot pare naa de ah non dañ ko 313 waaw min Bah del xam amanat nuas waaw moom na trop baax na trop baax na trop non dafa bëri njëriñ xam nga euh, arafi alxuraan yëpp ña nga fa ak moom Muhammad Rasulullah moom boom boo boolee moom feebar kuy fay faj feebar dugal leen ci suma ansala ak Muhammad Rasulullah aay am aay am doole lañ aay am doole lañ waaw am na solo lool wàcc naa wàcc naa Assane Diagne wàcc naa wàcc naa Va, Vacina. Vacina. benn sëkk waaw ah, kii sax bàyyil ma julli jot na yàlla ya def taw féex nduur pare na am say bagage nduur nduur am nduur am say bagage nduur man maa xuloog yow